en tout cas dina am ay particularités yoo xam ne dañu koy axé sur des infrastructures innovantes des infrastructures innovantes mooy dañu am ay jumtuwaay bees yoo xam ne foo ñu indi ko si kër yi parce que tey boo xoolee budget bi ren bari yàgg nañ fa parce que tout simplement question yi di ñëw mooy recettes yi ñuy mobiliser donc il faut que ñun aussi ñu mun di ay infrastructures yoo xam ne benn day satisfaire étudiants yi ko étudiant dootul bëgg a fugal match nocturne mu ne day dem à l'université wala day dem terrain Casa Sport il faut ñu maintenir dans le campus social pour mun a sécuriser davantage le campus au delà de ça aussi dañuy indi yeneen infrastructure ak yeneen collaborateurs yi ñu am pour que au lépp loo xam ne lu baax dañ koy gis fii di ko gis bitim réew il faut ñu am ko fii ci université Assane Seck ñu loolu mooy baax la gis ko feneen dañ koy